Sonko n'est pas mon leader. Pas possible. Demain, je peux être peut-être à ses côtés pour l'aider, pourquoi pas. Mais il n'est pas mon leader. Donc il faut également que l'on cesse de se mettre dans des attitudes qui détruisent l'unité de l'opposition. Quand on doit être ensemble, andu nawle la ñuy taxawal waaye xaaral jiitu wax lii fu ñu jëm xale la faut arrêter ça il faut que l'opposition devienne mature dans ce pays je crois qu'elle a déjà montré que c'était possible non seulement en en en en 2000 avant avant 2000 en 2011 2012 également euh, récemment en 2022 il faut qu'on reste dans des dynamiques de cette nature on va vers des élections présidentielles chacun à ses ambitions, mais il y a une part de l'organisation de ces élections qui relève de l'unité de l'opposition. Et il faut la créer. Il faut y parvenir. Et il faut même, il faut même préparer le deuxième tour et la gestion future. Comment organiser les soutiens au profit de celui qui va être le représentant de l'opposition. Mais tout ça, ça se prépare. Et ça se prépare pas avec c'est moi le, le, leader ou c'est un tel le leader, donc tout, tout euh, derrière lui. Non, il y, y, a des gens qui vont jamais accepter ça. Man Sénégal laa jiital du ma jiital diw la diw la diw la Sénégal moo ma ñor kenn dégguma ma doon euh, candidat les législatives j'ai pas cherché à être député <laughs> waaye dama ci sonn lool ndax mbëbët bi lan laa jàppoon mu war a doon mëbët nasaxal Macky Sall ba mu bañ ñu sonnal avec son troisième mandat bon ça n'a pas produit les effets escomptés au moins mais au moins am na loo xam ne si historique te te te feeñ na mooy amul majorité te loolu kenn yaakaaru ko woon concert de casserole waaw concert de casserole am na réew boo xam ne mas na fa daaneel nguur c'était en Iran man li ma ci yokk sax peut-être c'est l'occasion hein à minuit waxuma concert de casserole bi doyatul na képp koo xam ne yaa ngeeg sa oto na nga klaxonné à minuit au moins pendant cinq minutes ñëpp di ko dégg loolu ñëw dolleeku ci concert concert de casserole <laughs>